waaw salaam salaam maa ngi jéggalu quoi dama yeewu rek daal ci benn vidéo mais vraiment euh, vidéo bi ay ree la ma def quoi parce que waar ku ñaan xaw ma Jibril waar xaw ma mais il racontait du n'importe quoi mais il du n'importe quoi ay wax yu amul bopp amul genn mais vraiment ay waxu kasaw kasaw di traité Ousmane Sonko de tous les noms de terrorisme d'assassin lu ne mais man li ma gën a metti <laughs> gën ma tiital mooy mais ñii ñoo nekk assemblée nationale ñii ñooy représenter le peuple au niveau de l'assemblée nationale et c'est ça qui fait peur parce que ñii mënuñoo sax représenter un quartier quartier laa ne quartier mënuñu ko représenter gouvernement Sénégal ñi nga xam ne ñoo ànd ak pouvoir bi yaakaar na ñoom ci pouvoir la ñuy dee war nañoo am benn jàngat ci li nga xam ne moo xew France gis ngeen en France il y a une révolution politique ñu bari bàyyiwuñ ci xel mais il y a une révolution politique parce que ñaari parti yi gënoon mag France muy parti socialiste ak les républicains ñoom Sarkozy ay parti yu amoon doole mais li leen dal ñoom ci seen bopp xamuñu ba léegi naka la demee dañoo xëy benn xale bu ndaw jóge fële ci giir gu gàtt la ko nit ñi xam mu ñëw renverser leen ñoom ñëpp renverser parti socialiste renverser les républicains tey en France boo demee assemblée nationale ay xale yu ndaw nga fay fekk ñu toog adduna bi ci boppam moo changé. te ñii nga xam ne ñoo nekk Sénégal tey paa yi nekk Sénégal nga xam ne depuis Senghor ba léegi wala depuis Diouf ba léegi ñu ngi ci gouvernement ñu ngi ci pouvoir ñoom disque dur bi ñu yor disque dur boobu dañ ko dépassé ñoom seen disque dur kenn actualisé wu ko jamono dafa dox te ñoom rendruñ ci compte gis ngeen génération bi léegi toogatuñu di xaar li ñu moom li nga xam ne ñoom ñoo ko moom. dañuy dem jëli ko kon usman Sonko mii nga xam ne moom ngeen yaakaar ne dafa ñëw pour xañ leen seen wërsëg usman Sonko objectif am du pour xañ leen seen wërsëg mais objectif am mooy pour defar Sénégal c'est qu'il faut loolu leer usman Sonko nekk fi pour di def ay règlement de compte talu ko sax. Ousmane Sonko li ko ñor soxal ko dëgg mooy defar réew mi c'est parce que xam na ni mën nañoo defar réew mi Sénégal mooy dëkk bi gën a neex a defar en Afrique dëkk bi gën a neex a defar en Afrique mooy Sénégal parce que Sénégal am na benn genre am na benn cohésion sociale Sénégal différentes ethnies yi dañoo nekk ay mbokk amuñu benn problème seen biir te loolu moo jafe. comme niñ ko waxee rek Senghor nekk na ñaata at ci bopp réew mi kenn mos fa dégg ñuy waxu ethnie Abdou Diouf nekk na fa ñaata at te ñooñ ay séeréer lañu kenn mosul dégg ñuy wax Sénégal waxu yéen ngeen ñëw rek bëgg a jaxase sénégalais yi mais seen bopp rek ngeen di jaxase loolu mënta ne sénégalais yeewu nañu xam nañ bu baax moo tax Djibril War moom. ak ñi mu àndal c'est penn perdue da ngeen di sonnal seen bopp bu mosoon naa def benn vidéo di leen ko expliquer ne leen Ousmane Sonko bu ngeen yaakaaree ne mën ngeen ci moom dara rek seen bopp ngeen di nax seen bopp ngeen di nax parce que laal Ousmane Sonko mooy laal la jeunesse sénégalaise mooy laal la jeunesse africaine te Ousmane Sonko mooy symboliser jeunesse boobu nga xam ne léegi mënatuñoo xaar dañoo sonn. ndax yéen seen politique bi nga xam ni politique yéen pour utukaayu alal kese képp mais ñun ñëpp Sénégal lañ ne ñun ak yéen ñoo dëkk ci koñ yi di tëddandoo du yeewandoo ku ci dugg ci gouvernement da ngeen di gis en en un temps record seen situation économique ku kër changé radicalement en un temps éclair kuñ ci nommé ministre. wala nga dugg nekk député wala nga nekk leneen leneen da ngeen di gis situation économique am changé rapidement doomam yi commencé voyager ay États-Unis fu ne ci àdduna bi commencé dawal ay 4x4 di ci teg seen bët mu leer leen ni lii seen alal la dañoo toll nag ci période boo xam ne jeunesse bi nga xam ne ñoo doon nangu loolu auparavant tey jeunesse tey bi mënatuñ koo nangu loolu moo leen dal loolu kese moo leen dal. yàlla yónni leen nag un leader boo xam ne moom moo méngoo ak ñoom seen revendication yàlla yónnee leen Ousmane Sonko yàlla yónnee leen Ousmane Sonko xam nga am na lu ma leen euh, am na lu ma doon wax ñu bari bàyyiwuñ ci xel mais daa ko répété dinaa ko répété pour ñu bari bàyyi ci xel dafa am ay leader yoo xam ne ay doomu aadama yoo xam ne. yàlla moo leen di tànnal boppam jox leen mission ñoom sax mën nañoo bañ a xam ne yàlla moo leen jox mission bi nee naa leen le président Ousmane Sonko dafa am ñetti melokaan yoo xam ne da koo jël ci ki nga xam ne mooy rasulillah mooy rasulillah à l'âge de 40 ans la ko yàlla jox mission bi Ousmane Sonko à l'âge de la ko waa Pastef ni kaay jiite parti bi à 40 lañ ko mission bi rasulillah kenn tànnul boppam yàlla moo ko tànn moom tànnul boppam de yàlla moo ko tànn subhanahu wa taala Ousmane Sonko tànnul boppam ñi fondé créé Pastef ñoom ñoo xool jikkoom xool jaar-jaaram dem tànn ko ne ko kaay jiite parti bi rasulillahi yàlla da koo tagg ci jikkoom tagg ko ci juddoom tagg ko ci askanam da koo tagg ci jikkoom ndax jikko mooy nit Ousmane Sonko ñi créé Pastef dañ koo tànn ci jikkoom moo tax ngeen war a bàyyi seen xel ci président Ousmane Sonko képp ku yaakaar ni mën ngaa faagaagal le président Ousmane Sonko boo moytuwul yow moom lay dal. boo moytul yow moom lay dal boo paree sa sa monsieur Waar même bu ngeen xoolee buy wax ci la xalif général des Mourides sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg mu ngi day wax ci moom ci benn façon arrogance boo xam ne xaw ma ndax nit ñi bàyyi nañ ci xel naan xalif bi sax xalif bi sax xool leen façon expression yu ñàkk teggin yooyu donc ñii nii li leen fi dese bariwul ñoom leur temps est révolu xam nañ ko xam nañ ni leen fi dese bariwul kon man damay wax jeunesse bi la jeunesse sénégalaise moo ñi nekk Sénégal ñi nekk ci diaspora bi étudiants yi préparé wu leen ñu defar Sénégal parce que defar Sénégal dafa jot te Sénégal dañ ko defar ah. Sénégal dañ ko defar par A ou par B Sénégal dañ ko defar kon préparé wu ñu defar réew mi parce que réew mi dañ koy defar. ñii nga xam ne ñoo fi nekk leen fi dese bariwul ñoom sax xam nañ ko xam nga nit booy lab nag gis ay xobu garab noo def jëm cee jafandu ndonte xam nga ne xobu garab yooyu mënuñ laa sauver mais di nga ci jéem a jafandu loolu moo leen dal loolu moo leen dal ils essaient de s'accrocher à des feuilles je dirais même pas des branches d'arbre mais à yooyu mënu leen te xam nañ ko donc ñii seen temps jeex na léegi nag nañu am fulla ak fayda na jeunesse bi préparé wu ñu defar réew mi changer jikko yi en profondeur changer doxalin changer nu ñuy xalaatee defar sunu réew ba génération yi ñëw ci ginnaaw bañ a sonn ba fépp fu ñu dem ci àdduna bi ñu jox ñu cër respecté ñu. du chinois du japonais du français du américain kenn dootu ñëw Sénégal naan ñuy defaral ay usines ak dañuy defaral ay énergie non lépp lu ñu soxla ñu ñun ñooy jël suñu ndaw yóbbu leen former leen ñoo defaral ñu ko loolu mooy un pays responsable loolu mooy ay njiit yu am ambition waaw di leen jaajëfal euh, di leen wax ba beneen yoon incha allah di ñaanal Sénégal jàmm jàmm ñu sax jërëjëf. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.